assemblée bi benn yoon. na xanaa ne ko bés bu la door nee na ko ci mi siège door ah niki dem la ñi nga xamante ni ñoo ñooy biir assemblée nationale ginnaaw ba ñu demee vote la ñu daal di rek génnee ki nga xamante ne moo di Mimi Touré ca assemblée nationale moom ginnaaw loolu itam moom mi leen di soxna si jot naa yëkkati bi nga xamante ne dina ko def moom Mimi Touré daana ko wëyal Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne ñoom ñoo sookee li ni mel dañ ko wax ci yéen kay bi ne dañoo rek daal di invoqué li ñuy wax jurisprudence bi amoon moo di Issa Sall moom ginnaaw ba démissionné ne woon ca parti réew mi. dafa dafa dafa dafa toogoon assemblée. dëgg la bu ñu ko fàtte ne. c'est vrai c'est vrai que Déthié Fall quand même ouais uh-huh. nekkul parti réew mi moo ko yóbboon assemblée nationale mais seen coalition. Uh-huh. moo ko yóbboon bi nga xamante ñoom Idrissa Seck Khalifa Sall et autres ñoo ko ñoo ko concocté woon. Uh-huh. moom moo ko yóbboon assemblée nationale donc il avait quand même eu à terminer son mandat. du mooy seen caravane orange boo woon wala. non ñoom ñoom man fàttali naa seen coalition en fait fàttali naa coalition bi nu mu nu mu nu mu tuddoon. en euh, en 2017 mais je pense bien que ñoom ñoo ko ñoo ko yóbbu woon assemblée nationale léegi nag ñi nga xamante ne ñoom ñoom la ñu wax ne. Mhm. ñoom ñoo sële avenir euh, Mimi Touré foofu ci assemblée nationale ñoo di waa parti démocratique sénégalais. Mhm. je précise bien. parti démocratique sénégalais pas la coalition comme ni ko yenn presse yi wax ndax ñi nga xamante ne euh, ñoo di Abdoulaye Diop ak kii di Lamine Thiam ñoom ñaar ñi le bokk PDS ñoom ñoo voté ngir Mimi Touré nga mën a génn assemblée nationale or que Lamine Diallo bi nga xamante ne moom euh, ci coalition Wallu Sénégal la bokk moom il a voté euh, léegi nag euh, ñi nga xamante ne ñoom la wax ne Mimi Touré dañu ko daal ci rapport IGE jamono ji nag. laaj bi mooy ndax dina dem ci yoonam déet. Ah, laaj bi mooy est-ce que ko pakat patam patamee comme ni ñu def ñenn daal di koy daal di koy. waaw ah, baax na kon kon réew mi fii la toll. ah réew mi fii la toll tamit maa ngi nekk noonu doy waar maanaam. sinébar xeetu sinébar bi ñuy wax cocaïne cocaïne maanaam xaw ma nu mu mel muy jaabaa jonge ci biir dëkk bi jamono ji moo ëlëm ñëpp. li fay dugg ci ay kilogramme de cocaïne dafa bëri. te yaa ngi chaque fois ñu ne. c'est vrai que douane mi ngi def liggéey ñu de kilogramme presque tonne. Mhm. dañu jàpp ni ki dem ci bato. am na nag ay nit yoo xamante ne xëy dëkk nañ ci Afrique du may citer pays pour ne pas ñoom lañ ci jot a jàpp daal lii daal la ñu bés bi le jour xëy tey beneen ñu ah sama tableau lu moo ci nekk tableau bi ah dafa planqué bi nag kaay ma wax la. eh Paate Paate Paate wele Paate Paate kaay. Ah! <laughs> déet c'est que ma wax la kaay ma wax la nag gis nga tableau bi. waaw tableau bi man il faut ah, ma jat ko su ma ko jatul su ma ko jatul du baax. tànk maa ngi fi daf may dénkal xaaral ma jat ko. waaw léemul ma ko waaye. waa kay bisimilah rahmaani rahiim bàyyi li seerum doxal bisimilah ñëwal enquête. d'accord enquête yéen kay dafa ñu dëgg ñu ci léegi ak soxna Mimi Touré mi nga xamante ne euh, dañ ne waa benn boo ko yaakaar ginnaaw bañ ko doon yootal xam nga dañ ne kuy kuy kuy yot du sëq moo tax it de moom moom bii moom daal na yii daal na daal na ñu ne benn boo ko yaakaar obtient la peau de Mimi Touré Aminata Touré déchu de son mandat de euh, député loolu mu nga am niki démb ginnaaw bi nga xamante ne dañ ne euh, kii di administrateur xaw ma administrateur xaw ma ni ñu koy waxee Mm-hmm. bu euh, bu APR di mm-hmm. docteur Augustin Tine moo def rek def demande jébbal ko euh, njiital assemblée nationale naka noonu itam ñu convoqué ñi nga xamante ñoo nekk ci bureau ba Euh, kii di Abdou Mbow mu nga xam ne moo jiite commission rek looya ba itam moom dafa mel ni yëf moom daanaka combat am la woon. Abdou Abdou Mbow moom moom moom seetlu naa <laughs> automatique man comprendre ma loolu. Abdou Mbow daal lépp lu ñu war a justifier ci lii daal Abdou moom il est toujours devant pour justifier pour expliquer pour euh, étayer euh, Abdou daal xam naa ne moom lu ko président de kii fay war a yàlla jar na ko daal. jar na ko xam nga yéen a lu mu wax. Hmm. nee na ko Aminata plus députée grâce à la détermination. sa mot est important détermination maanaam dugg gu mat sëkk lañ ci defoon ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo faree euh, ci coalition Benno li ñu boobu nga xam ne ñoom ñoo ko moom ñoom ñoom ñoo ko moom quoi ñoom moom jaaxal nee ñoom ñoo ko joxoon. mais ñoom joxuñu ko ko woon askan wi moom moom moo leen moo leen sànnil carte ci ñi leen jot a wóolu waa baax na ci askan wi sax ñi leen wóolu sax nag dëgg-dëgg ba yóbbu leen ci assemblée nationale ba li leen ci beneen bi mooy mam bi comme ni ko waxee sànq 805 kilogrammes de cocaïne bi nga xamante jot nañ ko jàpp ni niki dem au large ne ab bateau moom la marine nationale bi daal di suspecté ginnaaw bi nga xamante ne daa fa amoon contre nu ñu koy sax euh, débarquement ak beneen bato maanaam en pleine mer gars yi dañu échanger benn affaire naka noonu itam ñoom ñu suspecté loolu xaw na kii euh, naka noonu lañu intercepté bateau boobu lañu gisee euh, quantité de drogue bu important bi ci nekkoon mm-hmm. beneen yéen kaay yoor yoor moom nag du yooru mukk ci li muy wax moom dafa xëy ñun ci ki nga xamante ni moo di euh, Mimi Touré ñu ne l'ex euh, première ministre perd son mandat de député Mimi euh, rallonge la liste des victime de gang lan la ñuy mu ne gangstérisme d'État ay waay sama moo boobu de yaa ma ko sañ wax lu muy tekki rallonge la liste des victimes de gangstérisme d'État gangster da xam naa ko waaye gangsterisme. gangster moom ci gangsterisme ci gangster la jógee. Ah, définition bi sax ñoo koo joxe yéen a kaay bi jàpp ne ñi nga xamante ñoo faree ci wàllu ñoom ñoo rek daal di jox loxo ñi nga xamante ñoo di Benno Bokk euh, ki nga xamante ni moo di Mimi ca assemblée nationale ñu ne cette jurisprudence Moustapha Cissé Lo et Mbaye Ndiaye pose problème yéen a kaay bi ñoo ñoom en large ci noonu rek la ñu daal di jëlee ki nga xamante ne moo di euh, Mimi Touré ca assemblée nationale waaye ma Omar maa xam Diallo def itam dama ni nam de. lu mu def Motala Gueye xam nga ko. nit dof waaw. Mhm. xaw da doon dof doful xaw ma waaye maa xam Diallo woon na ko yoon mi de. daf ko yóbbu prison. waaw dégg naa ko. dégg naa ko man daal defoon na ko digg démb. Mhm. moom dafa yàgg sax ci garde bi. Ah, moom dafa yàgg ci garde bi sax moom xam naa ne moom. xaar ma noppi sax man man moom amul avocat amul amul ma fay avocat xam naa ne mandat de dépôt moom mooy gën a gaaw loo gis laas laas yéenekaay moom dafa ñëw ci waa parti démocratique sénégalais ndax dañoo jàpp ne ñoom ñi le di waa PDS dañu rek daal di jël seen revanche ci ki nga xamante ne moo di soxna Aminata Touré ndax bu ñu fàttaliku ci jamono bi muy nekk ministre de la justice lépp li nga xamante ne euh, ñeloon na mbiri Karim Wade fast track ba ak euh, on accélère la cadence moom moo ko jiite woon moo tax it. Mm. Euh, yéen kaay jamono ji fento la daal. moo tax moom it accéléré nañu ko daal. ah moom kay patam patam bu gaaw sax. Mm. moo tax ñu ne éviction de l' assemblée nationale le PDS pense à revanche sur Mimi Touré. Euh, beneen yéenekaay wax na ci yonaan sax beneen yéenekaay yéenekaay wax na itam ci grève bi nga xamante ne euh, ñiy def transporteurs yi ni ki démb nag dot nañ ko dakkal ginnaaw bu ñu gisante gisanteeg euh, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou foofu noonu ca Touba beneen yéenekaay mu di Le Quotidien moom dafa des ñun ba léegi ci ki nga xamante ne moo di Mimi Touré ñu ne le tour est joué ah jël sant Mimi Touré rek daal ci daal di koy euh, titré ñu ne le tour est joué pour ki nga xamante ne moo di euh, Mimi Touré maître Oumayoum ne c'est conforme à la pratique euh, parlementaire Mimi Touré ne je reste déterminé à poursuivre mon combat xeex gi nga xamante ne jamono ji moom sax da koy gën a fësal mm. ne ci opposition bi la bokk daanaka moom wane woon na ko ba pare waaye jamono ji nag dafa mel ni la guerre est déjà lancée te aussi tamit foofu war nañ cee mën a bàyyi xel parce que Mimi ah moo tax nag conférence de presse bi muy def ci kanam ñëpp nga koy xaar parce que dañu bëgg xam nag moom dëgg-dëgg détermination bi muy wax nii ak ban stratégie lay utiliser justement pour poursuivre son combat laaj la bu ñëpp di man de bëgg naa xam dëgg-dëgg moom mi jigéen yi ñu def defaat nii. suñu mayee ñu wane ko. ah bu ñu nañ ko wane moom waaye du nekk direct. ndax lan lu tax du nekk direct. léegi ku war a koo xam ne da ngay wax dara ci nguur gi ñu coupé sa signal wala yàq sa réseau internet du ko woon. déedéet. mu leeral ma. waaw yow Pa de taxawal. nga ne ku loo xamante ne ne enragé wu ñu fi nekk ñu coupé sa réseau. connexion bloqué sa xam nga nag à la minute looy jot information loolu loolu day fi xew. léegi kon ba tax na nga yaakaar ni conférence de presse Mimi Touré bi du nekk direct. Ah. wala boog nit ñi dañu jafe-jafe pour suivre ko. ah, ah ma ne du nekk en direct am jafe-jafe ñi ma gis nii. Hmm. Ah, ñu dem. xam naa fi ñu ko bëgg jaaree dama mu yomb na li benn waay waxoon démb ci sama émission bi naan connexion internet bi ñu jënd du benn opérateur moo ñu ko may dañ koy jënd mhm. seetaan ni ñuy dagg. dañuy tere seetaan yéen en direct. waaw c'est vrai que nag meetingu keroog Ousmane ñu waxantee dëgg nit ñi balaa ñoo seetaan laay. wax sax ni Kër Moussa dafa amoon coupure courant. coupé nañ courant foofu. voilà c'est c'est en fait en fait y a est-ce que amul ku bëgg est-ce que amul ku am dëkk bi jaxasoo. ah je xam nga restriction su bare bu nit ñi sësee dañuy xeex après bu ñu xeexee ñu reyante mar di taali mais damay laaj est-ce que amul ko am intérêt dëkk bi jaxasoo. kooku de intérêt gi moo y a du pétrole y a du gaz y a toutes nos ressources bu jaxasoo wee day am ñuy jëw jël profiter léegi est-ce que amul ku loolu am et qui pousse le président dans le sens de presque sonal sénégalais yi ñu réagir loolu am dafa mel ni. parce que le président mu ngi ci bouchon bi affaire baa ngi tiré wu cest à mooy mooy tey ok euh, xoolal léegi bu vous restez à carreau grève transporteur. état bi lànk transporteur lank lànk bon ñu ne nañ dem ci kilifa diine bi kilifa diine bi ne bàyyi leen. nit ñi am te sénégalais yi am te non sénégalais yi am teggin bu toll ni bu kilifa bi waxee kilifa diine bi. waaw léegi kañ la. kañ la nguur moom di déglu kilifa diine bi laa bëgg a xam. loolu tamit la. parlons sérieusement. kañ mm. la Sénégal yi avec toute la souffrance que les populations endurent bu kilifa diine bi wax ñu ne nañ bàyyi. mais kañ la kilifa diine bi di wax ak nguur gi pour que nguur gi bàyyi métital bi muy teg Sénégalais yi loolu aussi laaj la mm-hmm. c'est une question parce que yàlla fi nekk moom moomu tiim. Mm-hmm. suñu kilifa diine yàlla daf leen fi teg pour ñu ñu woon diine. Mm-hmm. naan mu yàlla na. te yàlla dëgg la jiital. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñoo rey dafa bi ñuy rey ñun ñëpp dafa ne dëgg yow Jésus bi nga gëm dafa ne dëgg Moussa dafa ne dëgg cent vingt quatre mille prophètes yëpp dëgg la ñu wax. waaw kilifa diine bi suñu wooyee ne nu ah nangam ak nangam dëgg nit ñi ne waaw kilifa bi diine bi lu mu wax dëgg la daal di bàyyi waaw quand est-ce que le kilifa diine bi di wax nitu nguur bi na ko yow ni ngay sonalee Sénégalais yi yow kañ nga koy arrêté. arrêté ko loolu aussi il faut mu wax ko. arrêté ko arrêté ko waaw nañu waxante dëgg rek. parce que grévistes yi am na fu ñu ko teg. sénégalais yi ñaxtu am na fu ñu ko teg bu dee képp ku grève ñu woo la ne nga bàyyi ku xeex ñu ne la bàyyi nga bàyyi te ciy dóore di continuer di dóore waaw kooku kañ la ñuy wax ak moom ne ko bàyyil kañ la ko kilifa diine bi di wax sëñ bi taxawal. te ba tey nga ne Paa Assane dëkkewul gaynde baax na doxalal. jërëjëf kon jësal jërëjëf. ku nga moo nekk nii di sëriñ Mountakha ginnaaw nga xamante ne moom. nu ngi kaa sant yàlla na fi yàgg te wér. amiin kaa sant yàlla na fi yàgg te wér. amiin nu ngi sant yàlla fi yàgg te wér. ak xalif yëpp waaye xalif yi ñun mu ngi seen doom seen sët seen jarbaat mu ngi sukk di tuub di jégalu di leen ñaan ngir jëmmi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak sunu maam yu baax yi fi nekk te fi ngeen wax ak président Macky Sall problème bi du benn sénégalais du opposant du kenn benn problème moo am Sénégal actuellement c'est le président Sall qui le cause yéen kilifa diine ñu ngi sub tu tuub laa wax di leen ñaan ngeen waxtaan ak président Macky Sall version bi mu leen di jox ak li mu leen di wax d'accord lool la gëm loolu la yaakaar loolu la xam mais yéen itam wax leen ko ne ko ñun population yi ñun ñuy joxe addiya ñun ñuy bokk ñuy rey suñu bopp ñun ñuy organiser wu ñun sonn nañu lott nañu tàyyi nañu dem nañu mënatuñu. jërëjëf. jërëjëf Seck jërëm sax yaram bu summeeku na ndeysaan ça l'a touché hmm. moo tax amuma dara lu ma ca teg <laughs> ñëwul ci aussi tamit il faut grévistes tamit wax nañ ñoom nee nañ comme que sëriñ bi ñaan na leen hmm. daana ñu bàyyee gum hmm. nee nañ màggal rafet na kilifa ñu koy su weesoot itam daan ñu delluwaat ci moom mm-hmm. gën koo exposé li nga xamante ne moo di euh, problème bi te ñii di l'info yenn kaay ñëw ñëw ak leen ci noonu ci bu baax a baax ñëw na itam ci ki xamante ne moo wax nañ ko ci sànq yenn kaay waaye itam ci ki nga xamante ne moo di leader de grand parti di Malick Gakou nag dem nag jàkkaarloog nag taskatu xibaar yi ci salle bu fees dell vraiment waaye Macky na waajal boppam de waaw nee ko Macky daal yaay problème bi eh. yaay problème bi waaye itam yaay solution bi mooy ne mën nga koo saafara nag problème bi yow la. waaye heure bu la neexee problème bi mën nga koo tekki nga doon solution bi. léegi solution mooy mu génn mu génn dëkk bi. xam nga loolu ma ki waxoon na ko ko remake la dafa dellu si waat rek. moom man li ma gën a métti moom Macky wax ñëpp li mu doon wax. Euh, ah, moo tax it lépp lu waaye wax rek ko na ko seet bu baax a baax euh, l' observateur ci Mimi Touré la ñëwoon di ba léegi mu xëy ñëw wax naan euh, Mimi Touré Euh, l'Assemblée nationale Mimi euh, démaqui démaqui démaqui démaquillé démaquillé démaquillé non fa ma def fa laa yem man lu ma mënta wax dama lay bàyyi nga waxal ma ko démaquillé mooy lan journal bee ko wax mooy lan journal bi ko jiitu daf la ne euh. Mimi Touré déshabillé mooy summi nañ ko waaw kii itam démaquillé dindi nañ lépp luy xeetu maquillage waa ci biir maquillage bi nag ci biir maquillage bi attention waxuñu la fard waxuñu la poudre waxuñu la fond de teint maki mii ci boppam lañ la wax moo tax mu nekk ci rouge MA c'est pas vrai man journal bi moom mooy bind bu baax li mu li mu li ma liir bu baax li ma bind. moo ko bind. Demaki Demaki. yee waxoo ko journal baa ko wax ci araab ci muy problème bi. d'accord ñu ne Alioune Souaré <laughs> spécialiste en droit parlementaire le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas cette prérogative. Mhm. n'a pas cette prérogative ki nga xamante ne moo di ex euh, premier ministre du Sénégal yéen a kaay mu ngi xaaj euh, question de l'avenir politique euh, de et sa place dans l'opposition jamono ji nag ñoom dooleel lañ ko. ah oui jamono ji nag dooleel nañ ko. léegi moom dina mën a positionner comme complètement dans l'opposition. Mhm. te su boobaa itam ah mun naa jur ci ñoom jéeya waaw. Euh, li nga xamante ni tamit juróon na fee xew ba tax gouvernement bi juróon ay mesures mooy l' accident yi nekk loolu itam euh, ñu ne l'autre dame de victimes d' accident de la circulation les minutes de la rencontre entre Serigne Mountakha euh, Mbacké les transporteurs ginnaaw bi nga xamante ñoom ñi ne dañu doon grève mu ñaan leen rek ñu ajandi de seen mot d'ordre boobu ba keroog rek ñuy daal di weesu li nga xamante ni mooy di <laughs> màggalu Porokhane waaye maami maami sàmm kaa kaa am na de luy kaa bi kaa l'observateur dafa ñëw ñun ci mbir mu doy waar mbir man ñu ne Mbour il épouse la sœur de son ex et publie ses vidéos observe ah nañ arrêté yi nag mu bàyyi tamit nag il épouse la sœur de son ex yow jigéen joo doon doxaan jigéen joo doon doxaan hmm. ah. nga wàcc ko fa dem doxaan sœuram takk ko ñu ne de na wa maa ngi ñëw takk bi doxaan jee ko jiitu ah. doxaan nga ko takk nga ko ah. waa léegi na nga jël vidéo ne ko bàcc nag léegi pour lan hmm. pour lan léegi léegi lii mu avancé loo réew mi wax naa ko fi démb nañ bàyyi yii yi doxalu réew. nañu di lijjanti kuy tudd kan. nga ni <laughs> ne ko nga ni. <laughs> réew dañoo war a bàyyi di lijjanti kan mooy tudd kan. doy na waar de doxalu réew de yoonu kenn nekku bu ma kenn laaj loolu déedéet kenn du la ko laaj. voilà te mooy dafa ñëw ñun ci Mimi Touré di nga xamante ne ñu ne euh, Mimi démissionné et exclu. démissionné entre guillemets. waaw. et exclu de l'Assemblée nationale ñu ne Aminata Touré euh, le président Macky Sall m'a exclu en totale violation de la loi ñi nga xamante ñoo di waa wallu Sénégal ci ni ko yéenekaay bi bindee ñoom ñoo rek daal di daal di maanaam bëri bëri ko mu nekkoon ci mbartal dañ koo buub amoon amoon benn jafandukaay. puus mu dem puusul mu dem. dañu lañ lañ lañ lañ xëcc rek bàyyi mu turee euh, daal di koo jëmee ci li nga xamante ne moo di ci suuf beneen yéenekaay mu di Vox Populi ñu ne comment la per à scellé la sort de euh, Mimi Touré ginnaaw bi nga xamante ne réunion jotoon naa am seen biir le 7 janvier ak ndogal li nga xamante ne euh, jëloon nañ ko ci. ak ki nga xamante ni moo di Omar Youm nekk président groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar nga xamante moom la jébal Amadou Mame Diop ak euh, réunion ba ñu daan am démb ak ñi def maanaam fépp nga xamante ne jaare nañ fa ngir génnee euh, Mimi Touré ca assemblée nationale yéenekaay bi ñëw na ci ñun yéenekaay bi itam ñëw naa ñun ci ki nga xamante ne moo di moo di euh, Ngouda Mboup nekk nit ko xel xam-xamam màcc lool ci wàllum yoon ak yoonal moom jàpp na ni ni nga xamante ne noonu la ñu jëlee ndogal bi le nag nekk na ndogal boo xamante ne amul jaarul ci yoon maanaam une euh, nu ñu ko waxee sax relève euh, de l'illégalité de la de la mesure moom la nga xamante ne moo di nguuru boobu doon naa expliqué ne képp koo xamante ne démissionné nga ci parti su dul parti boobu moo la yóbbu euh, ca assemblée nationale donc mandat ba war a ko rek daal di ñàkk Malick Gakou itam ni ki dem ci conférence de presse jot naa xam ne ne jamono ji nag tolof tolof yi Sénégal yëpp Macky rek la daal di tudd beneen moom dafa ñëw Euh, ci euh, li nga xamante ne moo xewandi euh, ci réew mi ak moom Mamadou Lamine Diallo bi nga xamante ne moo di leaderu tekki bokk ci coalition wàllu Sénégal moom jot naa àddu ci li nga xamante ne moo fi jot am ñu ne après le gaz c'est autour du charbon de se signaler dans les prédations yenn kay bi aw ñëw nañ ci soppi jàllar bi renouveau rénovation rupture toujours rien kaddu yi la nag nekk na kaddu yoo xamante ne waaw waaw waaw waaw waaw waaw Malick Gakou yëkkati na ko démb ñu ne la République est un broc pour chaque président qui passe et sa famille politique le peuple ce n'est pas leur affaire que ça père col ou petit ay waay man man tubaab gi xóot na di <laughs> ah ngeen baal ma rek man sama sama jàng moo serewul yéen kay bi itam ñëw ak naa ñun ci <laughs> waa APR ñu ne ñoom ñu ne ñoo nag daal di dégomé dégomé mami xam nga luy dégomé dégomé mu daal di effacé waaw maanaam su nekkoon militaire yi maanaam militaire yi ñoo waxee déggoom lu rek mooy maanaam. ñu effacé ko. waaw. Mhm. loolu de lañu daan def euh, Mimi Touré waaye mi dem jot naa xam ne. soppi jàllarbi renouveau rénovation rupture toujours rien. rien tous beneen yéenekaay. dara am na xar kanam nga xam ne mu ngi ci dama koo gis nag am envie zappé. <laughs> mënu ma cee dellu si waat ñu dëkk Thiès xam nañ li muy wax rentrée politique sous la signe de la résistance Ousmane Sonko acte violemment son son Pastef euh, perspective politico-judiciaire peur sur dakaar li nga xamante ne euh, xam ñottoo nañ ne mun naa am ci réew mi su nekkee euh, ñi nga xamante ñoo ñoo fi nekk yëpp di def ay déclaration politique ak seen i farandoo ci loolu la ñuy rek daal di def mhm. moo tax yéen a bu jàpp ne Ndakaaru mën naa jax ba àgg ci ba àgg ci lool mhm. maali Gakou itam nee na ko euh, euh, une candidature indéfendable ci li nga xamante ne moo di troisième mandat bu président de la république taxawaay bi mu ci amoon euh, démb ak barki démb ci la desan yi moom mi lay di Malick Gakou mhm. beneen yéen kaay mu di l'exclusive nee na rapport du maire de Malicounda et DG du COUD les imbattables records du du du leader Maguette Sène Maguette Sène moom mooy kan mooy directeur bu COUD maire de Malicounda mhm. jamono ji moo yëngal moo yëngal. waaw moo yëngal bari ne nañ di Mbour député ya fa amee suñ ko am nañ c'est grâce à lui. moom moo tax. waaw am na fa poids politique daal. yii maanaam kañ lam maanaam ndax mu rawee seen adversaire politique yi. dafa bëri moo leen may ñoom ñu mën a gagné département bi. Mm-hmm. mais ñàppoon nañ ko ba pare. d'accord. waaw ndax kon ndax ca Mbour ci boppam. ñoom dañ leen faa door door yu sax. métti. Hmm? Hmm, yeewi kat dinañ faa yeewee yeewee yeewee mais ci ginnaaw ga moom mii moo yeewaat waa yeewi moom moom moom moom moom màgget seen tubarkàlla tubarkàlla moo tax ñii rek am ñëw naan ñun ci euh, taxawaay ne moom am na ko fa waaye Mimi Touré itam ak euh, dàq mañ ko amalee ca assemblée nationale ñu ne euh, ñi nga xam ne ñoo fexe ca bureau ba ca assemblée nationale da ah, daal di évoqué jurisprudence bu Mbaye Ndiaye Cissé Lo d'accord moo tax daal ñu jël Aminata Touré daal teg teg ko sous mandat de déchéance amoon kañ amoon kañ. soo journal bi noonu la ko waxee. Hmm. baax na nañ dem. <laughs> am ngay wax. <laughs> allons rek. yéen a kaay la maanaam nekk crise dans l' alliance des forces mooy parti Moustapha Niasse ah ah, ah du du moom laa doon wax sax AFP. waaw. papa ci TGV bu TGV bi parti bi. lu ci la mandat wax mu ne. nee da jamono ji moom ah xam ah, na giita ngaas. pour ne pas dire benn jaxasoo rek tàmbale go amee seen biir ndax ñeneen ci ñoom ñoo jàpp ne 2024 dañu war a am candidat par force te jamono ji nag euh, Alioune Sarr mu fi nekkoon ministre ay jamono. moom mooy seen candidat. ñoom la ñu bëgg jiitoo ko. ah d'accord am ñoo xam ne nañ nag du ca du ca dal. ndax la foog ñu déglu président Macky Sall ba pare ba ñuy xam ndax ñoom dañuy am candidat au sein du parti. ah parce que AFP Macky Sall tamit moo ko moom wala. mais ci coalition lañ nekk nee na. Ah, dañuy xaar dañuy xaar mu ne day def candidature. ah, ah d' accord ok très bien balaa ñoo mën a prononcé wu daal il faut ñu xam coalition bi kan lañ jiital. loolu de moo ñaax ambition dëgg. d' accord. ah ma am sama parti parti bi di dund di dund coalition mën a tas léegi yow dootu mën sa parti ba pare yu nga ne noonu coalition bi ngay dundal léegi nag coalition bi tas ñu xool kon su coalition bi tasee sa parti tas na. baax na. dañ seetaan ba xam ne wànnante mu jékki gëta ah loolu de sama sama sama sama sama sama commentaire bopp la waaw fa laa yem ak ci yéen kaay bi fii nii. waaye man de man de su ma nekkoon AFP man. pas hmm. Assane Jérôme ma nekk pas AFP di militer. yaa ngi dégg. Hmm. ànd ak parti bi durant des années di ci investi di ci politique di ci campagne di ci wax di ci waxaat di ci xuloo di ci xeex di ci daj lu nekk ba ñu toll fi ñu war a toll nii mu leer ma ne numéro un bi jeexal na ndax ci wàllu nguur. amul mu ci deful. amul itam lu ñu ko ci nomewul lu mu ci waroon am ci teraanga am na ko ci man ma war a jël un peu relève bu parti bi joxuñu ma opportunité boobu mhm. damay am fullaay bàyyi mhm. dem foo xamante ne foofu leer na ma ne li ma bëgg ci wàllum politique dinaa ko am wala naa ci am ubbeeku wala naa ci am yokkute man daal du ma langaamu ci neen daal ci gàttal man maa dul jàpp man ci yellu loo xamante ne dëgërul yow bu romb quotidien bi sama quotidien bi sama journal bi ban ci sama journal bi bu ko romb. sama journal bi bu ko romb waaye tuwarkaal la déedéet bii la boobu passé nañ ko taxawal ci le ah, réveil. bare gu ma woon de parce que daa am ko ma doon seet. suma coppée xalil koo xamante ne ci grand euh, mooy leader du grand parti di Malick Gakou xam nga moom AFP nekkoon. Hmm. il a longtemps expliqué lan moo ko jëlee AFP. Hmm. te loolu actuellement l'histoire est en train de se répéter. ak Alioune Sarr d'accord. très bien mais Alioune Sarr moom dafa noppi waxul. Mhm. mais Malick Gakou moom dafa wax. dafa fësal. dafa fësal. dafa fësaloon parce que moom tamit mënu woon jàpp Macky Sall nekk seen candidat. Mhm. Mhm. ak ndogal ni tamit bëggoon na ko jël ci élection maanaam sax kii référendum bee tout ça loolu tamit bokk na woon ci li li tax. mag daal du fi mu génn gouvernement mu démissionné ci gouvernement am ñu génnee ko ci euh, parti bi nga xamante ne fa la nekkoon. Mm-hmm. léegi moom ba euh, créé li nga xamante ne moo di euh, moo di parti boppam. Mm-hmm. El Hadj Bamaro Dramé sur le désenclavement du sud ñu ne si Macky accepte de m'accompagner je suis prêt à transformer le visage de Marsassoum. Mm-hmm. moom woote na ci président de la République. pour rek mu daal di koy gunge ngir rek gën a mën a seen dëkk ñu ne rapport des cours des ñu yaakaaroon ne jeex na jeexagul de ñu ne Macky crée un contre-feu et fait virer <laughs> dans l'illégalité dëgg la parce que xam nga ne coow yi bu amee waxi cour des comptes moom duñ ko gaaw a wax xam nga loolu métti ci ñoom suba boo xëyee dossier bu bees génn xam nga loolu lu métti ci moom ñoo hmm. mën a ñaas xam nga la ñaas hmm. dañ lay ñaas duñ daw dañ lay ñaas ba xool xool ndax da ngay fay ou pas. doom nday Pa Assane la. Ah, journal bi baax xam nga ne journal Pa la. xaw ma ko woon en tout cas mën ñaas daal dañ ñoom dañ. journal am la di Pa dañuy ñaase. kii yow Pa lu mu bokk rek laaj ndax day ñaas wala day gàjje. ñu ne les députés du PDS se vengent et votent pour la destitution de l'ex premier ministre. ah maa du daal lu ñëpp wax mooy dëgg kon. Ah, li ngeen foog est-ce que du loolu kon dëgg-dëgg finalement. Khalil Diémé kenn du moom de ci réew mi. waaw. ak ak yor-yor. mu ngi kenn du moom l'indépendant yor-yor xamoo kana. jërëjëf yor-yor xaw ma kana xamoo kana yow yor-yor. yor-yor kooku moom. ah Serigne Saliou ah, du du yor du yor ci li muy wax. Serigne Saliou yoru nag. nag. moom yor-yor la yow mën ngaa tudd Serigne Saliou te doo am fulaak fayda. en tout cas du mënta ne. du ñu yooru de aywa su ñuy wax rek xam ne man des fois seen tiit yi sax. xam ngeen ni Sénégal faw nu taxaw lànk wax dëgg wax dëgg sax. est-ce que est-ce que xam ngeen ni dañu nekk ci benn réew boo xam dañu bëgg a wax ñun ñëpp nañu non non non bàyyi leen daal xam ngeen daal mais non lànk. non lànk noo bay. waay waay eh, ji la mu wax ca Kër Masar baal ma rek. xaar xaar na wax bu ko bu ko waay waay bala nga ciy dem dimbali ma rek maa la ko ñaan. Mm-hmm. acteur bi ma la jox dama ne daa am terme bu Ousmane Sonko wax. Mm. nit ñi ne noonoo ñenn ñi nit foo fekk nag ñenn ñi ci jamono bi toll souffrance bi population bi di dund foo fekk kuy def naka su dul naan non non non non non non à rek xoolaat ko moom affaire am baax na. mais bu dee non ne ko si si si. non non moom baax na. Hmm? lijjanti na boppam ay affaire am baax nañu. Hmm. pourtant ñun ñëpp mën nañu def comme ñëpp ku ci nekk suñu mën nga def comme ñëpp lijjanti mais àdduna ak réew bu demee ba ñu nànk que nii ñëpp daal di nii te du dëgg. mbooloo bu ñuy ànd dañuy ànd si dëgg su dëgg amul dañuy taxaw lànk waa ji dafa wax gàtt sa gàtt sa ca fële nit ñi ne waa ji gis ngeen ko de. kii de ma ngay saaga ma ngay saaga mënul yor réew mënul yor réew non da ne mënul yor réew gis ngeen ma ngay saaga pour temps pour pourtant. président Macky Sall dafa woote en 2011 ne génn leen ci mbedd bi ñu xeex ak Abdoulaye Wade mi kii daf noo bëgg a fonto waaw nit ñi waxuñu woon dafa ñàkk kersa dafa ñàkk yar dafa ñàkk war ma pourtant Ablaye Wade maam la bàyyi la. dañ waxante dëgg rek yàlla tax. Sénégal faw nu arrêté fo bi. xool leen ni ñu tiitree mbir mi. ci Aminata Touré. elle est liquidée elle est les autres idem ku ñu fi éliminé mais lu tax du ñu wax xoolal presse bi yëpp dafa mel ni ñaari journaux. wala ñett peut-être ñoo fi xaw a mel ni ñu àndul ak nguur gi ñu si ñëpp seen tiitaay boo xoolee dafay mel ni waxuma leen loolu la de mais dafay mel ni contexte boobu ñu dugal moo baaxut jërëm dégg naa ko sànq. Mhm. te loolu dal na ay sénégalais. te nguur gi ci loolu lay sukkandiku di def li moo def moo tax benn Ousmane Sonko ak son style agréé agréé ñi nga xam ne ñooy jeunesse bi. Mhm. parce que jeunesse bi dañuy bañ ñoom. Mhm. bu ñu gisee kuy bañ comme ñoom dañuy ànd ak c'est ça que les gens doivent comprendre. c'est de la psychologie ak fu nit ñi toll nit ñi ngi souffrir koo gis mu naan ay man sama téléphone bi xaaral ay dañ may déglu léegi psychose boobu moo renvoyé wu dem ci jeunesse boo xam ne day taxaw ne merde à la fin. <laughs> am leader bu ñëw taxaw waxee sens boobu booy ne waajaa ngi nii kii la kii leen doon wër. parce que au moins kii am na fulla ak fayda bu toll ni lànk. te Sénégal Nabou Cor xaw ma sàmb mami sàmb Sénégal foofu ñu bañ jamono bi ñu toll nii bu ñu bañul xam nga luy xew dañuy am ay dictateur yuy toog nekk benn groupe jël suñu pétrole jël suñu gaz jël suñuy ressources di ko dile tubaab yi ba pare ñun ñu ñuy as mais def ñu ay jaam duñ ko nangu ko nangu te loolu duñ ko nangu il faut que nguur gi ngeen xam loolu maa ngi dégg ñenn ñi naan am na ku ma wax démb xaw ma bërki démb ne ma yow boo jógee nekk fii di tararari ah. dégg nga baax mu ne ma di tararari ah et puis yow xanaa xamoon réew mi ngay ñaan mu tàkk bu doo ci mucc ma ne ko laaxuloo laaxu ci laa bi la si. ma ne ko yow nag yaay munaafiqun mm-hmm. yow yaa ma fekk may ñaan réew mi tàkk yow yaa bon. Mm-hmm. baal leen ma terme bi waaye nee naa ko yow yaay kasara. Mm-hmm. yow yaa yor jikkoy jaam. yow yaa yor jikkoy ñi ñoo tam xamal ndax. parce que souvent quand on veut mettre en mal avec les gens dañ naan yaa wax lii. Mm-hmm. waaw gis nga de ni mu ko waxee du te fekk li loo wax ak la façon dont on parle c'est de l'alerte mooy attention fi ñu jëm baaxut benn nit bu tiim réew moom bëgg-bëggam la xam mais xamul bëgg-bëgg réew ma. Mm-hmm. waa réew ma ñooy jóg taxawal ka te dëgg la. <laughs> waaye dëgg la Seck. Omar. Bachir bu Soudan ba mu sonalee waa réew nii ñuy def. 10 mhm. francs la yokk ci mburu ma nit ñi jóg nag nekkoon nag léegi sax yow jeex na. maa ngi dégg ay nit léeg-léeg boo waxee ñu naan la mais eh, eh, booy sama rek il faut arrêter ce sera plus comme avant yéen da ngeen a xam loolu Mohamed Bouazizi ca Tunisie ba muy taal boppam waa Tunisie génn benn àll moo ëppoon doole président Macky Sall. gaa ñi génn rek la ko donc président Macky Sall su nekkee si yoon bi. sénégalais yi dañuy ànd ak moom ci yoon bi su nekkul si yoon bi sénégalais yi dañ ko naan basta te moom président mu ngi xëcc rek mu ngi xëcc rek mu ngi xëcc rek di ñu pousse foofu bu ñu waxee nag ñu naan ñu yéen a toog fii di wax waaye xam nga ne sénégalais du ñu wax ba booba yàlla yu yàlla may fekkee tal. amiin il faut savoir s'arrêter il faut benn moment nga ne stop rafetal mais am su mu kersa tuuti sax. c'est important kersa gi c'est important. ba tey ba tey ndekkiwul gaynde de doxalal <laughs> léegi nga xam lan la ndekki dina la leer ñëwal doxalal gaaw ah, li ma naroon def sax defal na ma waaye loo doon bëgg wax ci mairie Kaolack benn journaliste dañ fa dóor journaliste dóor ndax lan ñu ne ñu ne maanaam eh, ñi ànd ak maire ba di Serigne Mbu waaw c'est gros bras ñëw téye waa ji tuuti ñu dammul was wa ndax nee nañ yooyu yaay waaj la mu wax nekkul loo xamante ne jëmee na ci fara farak maire ba di mu di di di di di Serigne Mboup. ah boo waxee lu farut ak maire bi dañ lay dóor. képp ku waxee loo xamante ne ñoom ne ci seen i nopp nekkul ci maanaam kañ ak tagg maire bi daal ci liggéey muy def ci kaw la daa yore sa bopp daañu ko defee diggaal ak yow ba mu sax saab moo tax demoon ji ci syndicat bi nga xamante ne moo. moom nu mu tudd journaliste bi. Moussa Fall Dakar réew mi daal ko foofu lañ toll boo d'accord rek nit daal mbàng boo d'accord la nit ñi doon imagine moom màngee moom waa ji euh, ko trop loolu nag nañ ko arrêté ci réew mi ah. nañu bàyyi caaxaan yaa ngi dégg journaliste yi ñuy jël def leen ay ballu ping pong tëj kaso génne dóor làpp ba mu nooy pour lan loolu mooy lan mu nit d'accord nag yow d'accord la yow nga dóor ko même bu fekkente ne nit ki sax daf la waxal loo xam ne teguwul ci yoon nga jàpp ne li ay propos diffamatoires yóbbu ko ci yoon c'est tout aussi simple que ça on n'a pas à avoir recours à la de wax dëgg yàlla teggi na kersa leen ko xamoon xaw ma nag loolu amaana bu ci waxee daanu xam loolu loolu moom du yoon moom loolu moom du yoon léegi lii lu ci waa Synpics wax ñoom ak waa waa kii ay appel ak ñoom kat xanaa xeex bi ah, waaw waaw comme baax na comme tàmbali nañ xeex bu baax dootuñ ko bàyyi mu daal kenn nag mu gën mën a rey ci réew rek mooy mooy journaliste yu ñuy faagaagal ci seen liggéey doxalal waaye itam Mimi Touré bañu faagaagal <laughs> assemblée man daal waaye waaye Les Échos nee nañu bennoo avec l'aide de wàllu vire man daal aaya gi wàcc na rek aaya gi wàcc. waaye Amadou Ba it moo ngi ci yéen a ñu ne menace sur la stabilité du pays proférée par Ousmane Sonko Amadou Ba fait preuve de fermeté. mu ni nee na que soit la ligne. le le tintamarre tintamarre. le waaw quel soit le tintamarre. waaw. le magies des réseaux sociaux l'état de l'état est debout nee na ko l'état est debout et il restera waaw loolu ñoom dañ ko ko wax fii fii kenn toogu fi tout le monde fii dans tous les cas. tentamar pour man pour kenn toogu fii dans tous les cas. tentamar mooy coow ak wax ju bëri bruitage brouhaha. non mooy tentamar. tamarin pour man sax pour man tamarin tamarin lañ <laughs> déedéet tentamar mooy coow ak bruit bëri ah journaliste bee nekk nii. waaw moom la may Anta di wan ni ci image yi jërëjëf merci beaucoup. waaw donc itam moom ni ki démb ji dafa mel ni de dem na saal bu ñëw taxaw. Hmm. te neen daanaka jàmmaloo président Macky Sall ba mu. ci dëggalul sa bopp xam. nee na ji kañ taxaw na tem te dootu ko mayte jàmm. Hmm. te bu moytu ñoom nañ ko tongal ba mu génn mbir réew mi. Hmm. beneen yéen a mu di la Soleil je sën. ah mami doo commenté le son nee na Aminata Touré perd son mandat de député ñu tekk ne sommet sur la souveraineté alimentaire au Sénégal ce jour intense balai diplomatique ñu ne la ñuy waxtaanee tey bokk na ci euh, ñaar fukk ak juróom-ñeenti njiitu réew ñoo ñëw fii ci Sénégal. Mm. ak délégation en pays ñoo ñëw fii nii euh, ngir rek waxtaanee lépp loo xam ne dafa bokk ci souveraineté alimentaire. lii da lañu nar a waxtaanee ni ki tey foofu noonu ca ca jam ñaajo daal te président Macky Sall mii moo koy daal di jiite hmm? moom mi nga xam ne mooy njiitu euh, Union africaine jàllal euh, l'évidence moom nee na ce qui est évidence la juda hmm. ah man nag loolu moom ànduma ci hmm. bu ñu wax wàllu man ni man chaque fois damay fa wàllu coalition la mais am na ñoo xam ne ñu ngi biir coalition la mais ànduñu ak ak ak ak la def démb donc bu ñu wax wàllu ah waaw yéen kaay daal loolu la jàpp ne maanaam ñeen ñi nga xam ne ñoo faree ci wàllu Sénégal daal ni ki dem ñoo trahir euh, kii di euh, Mimi Mimi Touré ñu ne Euh, pollution causée par l'usine euh, Bissap Béton à Rufisque les cités unies de Diasaka et Almadina gagnent ah gagnent lan. une manche de combat. kon dem nañu ci xeex. non parce que parce que ma maam Ngor doon na expliquer ni foofu. effectivement dafa dafa bëggoon def benn usine. xaw ma écoutu woon yoon. même le, le ministre là gars yi kii nañ ko bu baax. Alioune Ndoye mm-hmm. non gars kii nañ ko bu baax mais jusqu'à présent ñoom ils s'entêtaient à uh, maintenir les choses doy na waar mais jamono ñu ko yëf yaa nga ci yoon ah waa baax na département lu nekk waa li libération lu mu waxati mooy li jàpp dem ci xeetu drogue Sénégal ci ci ci dëkk bi libération lépp xam nga ñoom moom li drogue gi exclusivité ñoom mhm. dañuy xóotal ci mbir bi nañ ci dem ba jeex ñi mhm. nekk am ñu ne intercepté par la euh, marine le navire qui transportait huit cent cinq kilogrammes de cocaïne ba pavillon Gambie se rendait au autonome de Dakar ñu ne ñu teg ci ne la drogue a été récupérée en pleine mer xam nga la ko doon wax. ci biir géej gi voilà maanaam dañ doon dañ doon échangeante. di waaw transbordement. voilà di di li di wax ak ñu koy waxee sax fi yekkale. Mhm. maanaam nañ dañ leen yekkale yekkale boobu nag. Euh, moo tax ñi nga xam ne ñoo di marine nationale daal leen daal leen teg loxo ñu ne cette suspens nationalité. yéen kay moo ko wax euh, italien ghanéen et nigérian entre les mains de euh, l'opprice Mimi Touré ni ki itam dàq bañ ko def ci assemblée nationale yéen kay bi ñëw ñun fi nii na Mimi Touré déchu de son mandat de député. leer na nañ léegi elle perd son immunité parlementaire la ci des nag bàyyi naa la ngeen commenté ko. léegi <laughs> léegi léegi après lu ñu bëgg te teg ah, continuer euh, après jàpp tëj. waaw merci xam nga li ma bëggoon li ma bëggoon commenté commenté nga ma ko voilà. léegi nag ndax moom dana leen bàyyi ci loolu. Sénégal daal. tey daal am ci xam dara. ah leen da xam naa ko ci. Hmm. man de xam naa ko ci tamit li mu xam bari na de. waaw. <laughs> Mamy dafa wax lu am solo sànq daf ko wax dégguñu wuñu ko de. Hmm. wala dégguñu ko. li mu xam bari dafa wax lu am solo. est-ce que xam nga ni xeexu jigéen moo gën a metti xeexu góor. <laughs> jigéen bu mer buy xeex ak yow. Hmm. barke alxuraan dana tar ci yow. kaa munti doon nag ak loo munti programmé xanaa mu bañ a xeex. xanaa jigéen bi bàyyi mu sedd. mais je pense qu'elle a ci trop victime de ce régime. dama ne xanaa jigéen bi bàyyi mu sedd waaye budut loolu ah. mais mimi damay àggam xolu yërmande ci moom. ah. ndax dama la gis moom ni ñu koy jëlee ah teg ko ci kanam à chaque fois lépp luy dal ci moom lay dal te elle encaisse tout te après nag suñu koy ne ko coppet. ba mu rafet moo tax mu ngi nii rafet na li mu doon tegee ko ne. li ngeen ni doy na waar. waaye tamit li Malick Gakou yàq président Macky Sall ni ki dem. yow yow yëngu dafa jot de ak ku ci mënti doon daa tamit. Ah, taxaw na tamit <laughs> lu sa bopp mooy loolu de. jamono ji moom Malick Gakou taxaw na temm ne moom moom mooy nekk euh, juróomeelu président de la république Sénégal. Hmm. te daana dox daana liggéey ngir askan bi mën koo xamee noonu moom mu ne le problème du Sénégal c'est ki Sall mais la solution s'appelle Malick Gakou moom nee na vers le lancement d'une nouvelle coalition coalition bi nag mu ngi tudd Manko Yewwi Sénégal yeewu ko ci ki ci ki fi nekk hmm. ñu ne suite euh, affaire suite bioté moom la ma ci jotoon wax moom Malick Gakou nee na fa lay desandi ne ndax jàpp na ni lépp li ñu jot a teg ci deru Ousmane lépp ay kàcc la te li Ousmane Sonko wax ne ab complot la mais ja jarul askan di ko laam-laamee ndax ñun ñëpp nañ seen gët. moom Malick daal dafa féete ci Ousmane Sonko ci gàntal. bamtu na ko bamtuwaat ko bamtuwaat ko bamtuwaat ko bamtuwaat ko ah, euh, kon baax na leer na. leer na lañ naa. Ah. taskatu xibaar ba mu du du du ndaje bi. Ah, en tout cas sànq dugg nañ ci page am. ah gis gis gisaguñu heure bi de. mais est-ce que duñ ko def ngoon sax. ayca ñu ngi koy xaarandi. loolu war na wax de. l'indépendant. loolu daal si de. man en tout daal xam naa ne Mimi Touré tey moom saf nga saf. aywa aywa ñu ngi actualité bi dem ba tey. wax wax na am photo bi nii. ah gisoo kanam gi ni mu fi def. expression loolu loolu daam si la la. expression kanam gi la génne heureusement que sëñ Mountakha mu ma ci wet gi sax agréé agréé. heureusement heureusement xam naa ne tey mu nuyu su waxee soo <laughs> ñu ne yéen kaay bi dafa ñu ne euh, levée du mot d'ordre de grève des euh, transporteurs euh, routiers ñu ne Serigne Mountakha ginnaaw ba mu dalalee ñi nga xamante ne ñoo doon grève waxtaan ak ñoom ba ñoom aja aja di gum nañ. ah. ajandi gun nañ li nga xamante ne moo di seen grève ba màggalu poroxaan bi. daal di daal di jàll am na lu turee déchu de son poste de député niki dem na lañ ko jot a xam ne ne moom mile euh, siège ba mu doon occupé occupé. te mm-hmm. assemblée nationale te ñu jàpp ne waa Benno Bokk Yaakaar ñoo ko moom. jëlee mm-hmm. eh, nañ suuf. ci suuf ci suuf a suuf Seydi Gassama lu moom nee na. Euh, section Sénégal Sénégal a pas de justice indépendante au Sénégal. Mm-hmm. waaw moom Birame kii Birame Seck. waaw moom nee na jamono ji nag kii di président Macky Sall hmm, a créé les conditions de l' indépendance du pouvoir judiciaire. ok jërëjëf dafa important woon important woon. ñun ñëpp fi mm-hmm. de. makki fee guillotiné Mimi. man du loolu de mais man journaliste ñoo soxla xoolal fa tamit dem ñu ne makki fee guillotiné Mimi Touré. lu mhm. muy tekki xam nga man sama français daa daa xóotul. guillotiné waaw. ah guillotine moom daanaka exécution la rek benn la rek. kon kon pare na ca. Hmm? guillotine kay moom ca tradition yàgg ya la woon. waaw waaye tamit maa ngi gàpp nañ xam ne jamono ji pare na taxaw na tem te ne naan daanaa jàkkaarloog président Macky lu mu ko timbax mu timbax ko ko. est-ce que vous avez remarqué que le le président Macky Sall li li mu liggéey malheureusement mënut a feeñ mënut a feeñ te du feeñ dans l'histoire on retiendra quelque chose malheureusement incha allah yàlla ñu yàlla may fekk ak tal xam nga lu ñuy retenir que de 2012 à 2022 jàpp 2023 jëm 2024 incha allah. le Sénégal a vécu un air de violence inouïe, jamais vécu politiquement. Est-ce que vous avez vu dans la titraille ou les titrailles de nos éditions, tout est violent, égorgé, guillotiné, guillotiné. serrasse, euh, déshabillé. déshabillé, démaquillé. C'est extraordinaire. En j'étais au groupe comme mm-hmm. 7. Hussein Narguey avait remplacé Gilles-Éric Fouadé sama kilifa yooyu maa ngi leen di nuyu. jamono bi fàtte ma Bokoum di nekk directrice générale COMCET. bi fa yaa xam bay jógee en tant que DG sachant sa Sader Diagne moo leen jiitu bi ñuy lancé populaire rek la ca des. il y avait Ousseynou Nar Gueye qui avait fait un titre dikk lañ ko yóbbu dikk xam nga lu tax. lu tax ñu yóbbu ko dikk. titre bi ñu def tey kan moo bind dem est-ce que euh, c'est pas ban journal la moo def démaquillé. il faut regarder ce que c'est pas la faux demal ma vérifier. journal bi def démaquillé. Mhm. dafa yam ci bind bi. Mhm. Ousseynou Naar Gueye grand maa ngi laa nuyu ba baax en 2001 mhm. bi président Ablaye Wade wàcc wàccee Moustapha Niass dafa fal. Euh, Mame Madior Boye en 2002 plutôt parce que après coupe du monde bi la ñu wàccee Mame Madior Boye bi mu ko wàccee <laughs> wala bi ñu ko nommé mu war a dem assemblée def déclaration de politique générale je pense que Ousseynou avait titré. loo wax déshabillé. waaw kan la c'est l'info effectivement c'est mhm. Naar avait titré euh, Mame Madior Boye se dévoile mais comme le trac autant dañu amoon style di vendre les ma les les mannequins mu def benn photomontage boo xam ne dañu teg benn mannequin bu sol maillot de bain. sunu waa kër maam Maajoor booy ngeen baal nu mais bon ça n'a rien à voir. Mhm. mu def photomontage def photom c'était scandaleux ci période boobu. tu sais qu'est-ce qui s'est passé. Hmm? xam nga lan moo xew. Hmm. la DIC est venue le prendre. ci contexte ak réalité. Mhm. nous on n'était pas d'accord. pas d'accord. Mhm. benn ça nous faisait mal que confrère ñu jël ko di ko yóbbu ay DIC vraiment ça nous faisait mal mais sur le principe. du traitement de l'info par rapport à cela on n'était pas d'accord sociologiquement ça n'a rien à avec nous mm-hmm. on se rappelle avoir dit la veille ah attention lii moom baaxul la ah, doxul mais ka nekk ak sa gis-gis malheureusement après il faut assumer mm-hmm. aujourd'hui loolu ni mu nekkee woon choc en 2022 2023 nekkatul choc pourquoi parce que nous vivons dans une société rendue hyper violente mm-hmm. quand j'entends des gens dire way réew moo xam ni da ngeen di saaga nit ñi way euh, maa ngi déglu Abdou Mbow démb ak Aïssatou Diop Fall mu naan way dëkk bo man lu ma bëgg a wax dama koy wax dëkk boo xam léegi dootuñu permettre kenn mu wax xalaatam c'est pas ça dañuy bi bi dañuy dévoyer la chose la réalité mooy quand vous vous agressez vous oppressez des gens bu yàggee dañuy violent et retour de bâton la violence boobu mooy dellu mooy que société bi dañ ko dugal ci benn contexte boo xam ni ñëpp ay mer. ñëppay soxor kenn du kenn du parce qu'il y a une responsabilité hautement élevée de quelqu'un qui a rendu cette société comme ça et hélas malheureusement président je suis désolé de le dire c'est le président qui a rendu cette société ainsi malheureusement. alors ci ayca. suuf ah. kañ la sa revue bi di jeex tamit. ah man de dama lay may temps de parole rek. yooyu noo bëgg bu jeex te saa yu tàmbali nga dugg. waaw ku mu yeggali. ci li nga la déchéance de moom dafa ñëw ñu en détail ci li nga xamante ne mooy xew démb ci assemblée nationale kàddu yi nga xamante ne Malick Gakou euh, yëkkati na ko dimi ni ki dem wax nañ ci waaye itam juróomi milliards yi nga xamante ne moom lañ jot utiliser 3 virgule. ah ok 5 milliards de francs CFA de voirie éclairée et 3,8 milliards pour une maison de la femme une poste de santé euh, une foyer des jeunes à Kaffrine le Promoville relu Kaffrine loolu nag xam nañ ne euh, mu it euh, ka fa nekk euh, turam du ma ko wax moom moo fa jaar ñu ne assemblée nationale Benno Events Mimi Touré wax nañ ci sànq Malick Gakou itam ñëw nañ ci grève transport transporteurs yi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum interurbain ñoom itam eh. wax nañ ci néegi sànq ñu ne le règlement intérieur de l' assemblée nationale piétine ki nga xamante ne moo di la loi constitutionnelle et tronqué ni ko yénni kaay bi Euh, beneen yéen a kaay mu di tribune mu ne wàllu prend sa revanche sur Mimi Touré drogue bi nga xamante moom lañ jàpp euh, ci euh, ci benn bato ci ci Ndakaaru wax nañ ci ak ndogal li nga xamante ne Serigne Mountakha jot na ko rek waxtaanee ak ñi yi ba ñu mën jeg seen grève googu nu ci suuf wax nañ ci sànq beneen yéen a kaay mu di sunu làmb moom sunu làmb mel ni mi dafa ñëw ak ñun ci combat bi nga xamante moo war a dox diggante Gris Bordeaux ak Ama Baldé Mm-hmm. nga xam ne jamono ji mënul am nag waaye Gris Bordeaux it ñoo koy wutal adversaire mm-hmm. ñu bëri jàpp ne gone gone ak gi di Siteu mm-hmm. war naa mën a bëreek moom waaye nag yéen kaay dafa ñëw ñun lan moo war a tax ne jamono ji Gris dafa war a xaar impérativement Ama Baldé wér ñun ñoom ñaan ñu jëflante yéen kaay bi ñëw nañ ci waaye itam combat bu am solo bu taxaw diggante Tyson 2 ah, bu Tay Shinger ak xale bii di caatu yox nga xam ne jamono ji nag ku mu ku mu ku mu jàkkaarloo su lu dóoree ñaari korpañ nga tëdd ci suuf ñu ne combat ba kii di Siri Jaxate production mel ni mi taxawal na ko ba daal dina koy régulariser ni ki démb seen CNG waaye itam combat war dox diggante B52 bu Mbour ak kii di kii di Tapha Tine ki xamante ni moo di Alioune Gueye moom na moom pare na daal ci. bu def ko événement bu mag bu mag loolu événement bu mag la war a doon loolu combat la nag Bombardier Tapha gis Tapha ah yow tamit Bombardier Tapha Tine <laughs> loolu. ko la ndax mos a gis Tapha Tine. man gis naa gis waaye tamit gis naa Tapha Tine nag. man xam naa ne moom sama waxoon bul waxati dootuma waxati. moom Tapha Tine. yaay <laughs> a ñëwee jàmbaar la nag. waaye ki muy bëreel itam jàmbaar la de. mbaar bi 52 moom tamit da ngeen a ko tuddee. mbaar yow yaa wax lii. tuddee moo ko mbaar seen waa ko ñoo ko tuddee mbaar. man yow mi assumé nga loolu. seen waa ko ñoo ko tuddee mbaar. waaw kon baax na kon mbaar bismillah. moom su ma déggee xam ne muy wax. seen <laughs> waa ko ñu laa dëkkaloo na awakaam ah, ah, avant avant may taxu macha allah maa ngi leen di ñoom sama xarit ñoom Ibrahima. noonu la ji dafa war a neex. Jérôme ah, dafa war a ubbeeku nit a neex voilà. waaw bu baax a baax. Mm. kii moom yow foo toj yan invaincu depuis 2015 huit victoire de rang caat caat bu na. mooy buuru Saloum. ah kon kay Saloum la toj nag. waaw ñoom Dakar maa ngi ñu bëri xaw ma ne waaye ñeme naa la de. <laughs> Bamba Dieng ak Nicolas Jackson. Mm. stade yéen a kaay ne jamono jii nekk nañ ñaari gaynde yoo xamante ne boo mooy këram yi fa nekkoon nañ fa jóge ndax ki nga xamante ne moo dee Bamba Dieng moom Lorient moo ko bëgg a jënd. Mm-hmm. mais Lorient dañoo am attaquant boo xam ne moom la Marseille bëgg a jënd. lii mm-hmm. daal moo tax ñu ne ñoom ñaar. dañuy daal di échanger waaye kii di Nicolas Jackson nag jamono ji moom ma nga nar dem club bi de Bournemouth daanaka acté nañ ko te su fa demee mooy nekk ñetteelu jour bi fi bi gën a seer. ah c'est bien macha allah. moom tamit nar a nekk seen jiglaay jour jour boo xam ne jëleen ko ci club. Mm. Villarreal la nekk dina mm. bokk jour yi gën a seer ci Villarreal jaar. ah toi daal ci de. d'accord ci transfert bi. nooy quitté Villarreal pour dem football Bournemouth Mm. aussi. Mm. booyul footballeur bu mag bi nee na la mm, loolu mooy d'accord na ak yow. man na gis nga man problème bi boo bëggee dégg dëgg man làmb laa gën a de aw problème. mais xam nga football bi lan moo ci nekk. man Sénégal buy football rek la may. intéressé xam nga football lan moo ci nekk jamono jii Angleterre. seen gën club bi dañoo am koppar gu bari. maanaam mu nga jël avant d'arrêt avant d'arrêt championnat Angleterre dem dem dem Real de Madrid jënd fa joueur bu seer. waaw ah, ndax koppar gi dañoo bari. ah doy Mm-hmm. maanaam soo jël soo leen jël dix yi nekk ci championnat Angleterre. dix mm-hmm. derniers yi. Mm-hmm. soo leen yóbbuwoon championnat de France mel ni Paris Saint-Germain moo leen di ëppale buteur. mel ni Paris Saint-Germain nag maanaam dañoo am koom-koom. jour bu ñu bëgg nañ su la neexee jënd ko. ndeysaan macha allah. te loolu nag bon suñuy joueurs la plupart ñoom ñoo ciy paye les pots cassés ndax club yi nekk dañuy soxla koom-koom donc ils sont obligés de de dem ci club yooyu léegi mais bon euh, espérons que su fa demee li nga xamante ne moo di réussite ba tamit euh, gën na bu baax a baax dooleel clubam ngir rek mu bëri ci deuxième division bi jamono ji nag équipe nationale Sénégal locale bi nekkee ca CHAN ne ñoom qualifié nañ ci euh, quart de yi wala xam nañ ki ñu dajal. ki ñu dajal Mauritanie. dañ koy dóor. du ma commentaire. maa ngi commentaire Sadio Mané est-ce que xam nga jamono jii delloo na ci entraînement yi. alhamdulilah rabbil ah, alamin. mu ngi moom moo maanaam mu ngi cokki cokki. ñu cokki cokki gi yàlla na ko yàlla. defal jàpp moo ngi daw bu baax. mais noonu la macha allah. yàlla na ko yàlla kàtt na Mauritanie dañ koy dóor jeex na wala. waaw wala am na ku des. des na am na des record. Hmm, ca record a ngi fa lay tëjee. waaw <laughs> Sadio ngi Sadio Badio. waaw ci lañ ñëw moom nee nañ après 76 jours d'indisponibilité Sadio voit enfin le bout ci ne la alhamdulilah waaye jamono club am moom ci jafe-jafe de. alhamdulilah bi dooree ba léegi. Hmm. amaguñ victoire. waa ñu Sadio la ñuy ah, na. Ah? a ñëw football te février sax wóorul. non dina football incha allah yàlla baax na yàlla mën na def balaa février. en tout cas club am nekk nekk en à domicile ah, bi euh, bind ko waaye heureusement maa leen koy jox xaral gumbuk bay jaaj moom koy toj loolu information moom maa la koy jox. Oh! quelle belle information. jamono ji moom mooy meilleur bureau sénégalais ci championnat yi nekk Europe. foofu ca Kara Goubrou. mooy meilleur bureau sénégalais ci championnat yi nekk Europe taarkalla taarkalla. maa ko ñaanal nag waa Assane maa ko ñaanal. Ah. maa ko ñaanal ca Kara Goubrou. Mbaye Ndiaye kon nag bu dee toj Kara Goubrou nag dëgg-dëgg. loolu nag mérite bi mérite bi mérite bi man la. am na juróom-ñeenti vues pour l'instant ci championnat. mana mana. mana mana dina dina bii dina gën a. mandat de ci yoon. Mbaye war na laa mandat. Jérôme Mbaye wax benn. Jérôme Mbaye mandat mandat moo indi ci réew mi bal mandat non waxuma mandat comme man. man maa xam mandat bi nga ko wax. wala mandat lañ bëgg lu dugg. doom ah d'accord kon léegi naa fi yem pour na waaye si <laughs> dafa lu la def sama rakk yi. ay li nga xam ne jot na koo wax. Euh, par rapport à la classe politique te nga xamante ne jamono ji ñi ñu bari euh, ñoo ngi ci koy ngawte ngawte moom jot na ci dellu si waat ak yéen kaay boobu. mu ne nii xeeñ neexul. voilà moom moo tax it moom mi lay di sita di xale jàmm gën vraiment jot na ci àdduwaat bu baax a baax ki nga xamante ni itam moo di euh, Moustapha Mbow hmm? nekk jarul may wax nekk lan mooy joueur rek la ah, nga xam ne nekkoon na ci U20 Sénégal jamono ji nag dañ ko rek daal di eh, daal di aale eh, club bi ko moom di Stade Rennes moo ko aale foofu noonu ca ca ca Belgique euh, euh, je pense que yéen kay fii la ñu yemandi. amul jërëjëf waaw Chan bi wax na ci sànq ah. waaw nee naa la Mauritanie dañ koy dóor waaw. dañ koy dóor bi ñuy dem bi ñuy bëgg qualifier CHAN 2013. mu ne leen Mauritanie moo dañ koy dóor dañ koy dóor am naa fa sax sama benn sœur bu fa nekk um waaye nag terewul dañ leen dóor. <laughs> àdduna amul solo. li moo fi ruusande woon ci ay yéenekaay. jërëjëf jërëjëf ñu Franck laay tudd ko fi joxante rendez-vous. jërëjëf yow da ngay da ngay ñëw sax après.